Assalamualaikum. Omar Manglay ngi nuyu bu baax si dalal bi nga xamne dalal nga mako tay ci sa télé bi pour ñu fassiyene waxtane actualité bi ci réew mi donc ma ngi tuddu Amadou Ndiol Ndaw président mouvement dolel Sénégal takku liggéey Sénégal euh, dëkk fele ci teungé ci tétako tay nak ma fassiyene jakarlo ak yow ñu waxtaan actualité ci réew mi. waaw Omar maa ngi lay nuyu ci question bi nga ma posé parce que loolu dama yaakaar ne waru bett kenn ndax bi problème bi amee euh, président de la république son excellence dañ koo laaj mu ne du ci addu ndax bés dina ñëw dana ci àddu donc bu ñu jàppee ci li mu waxoon tey bi yàlla defee mu jël décision wax ne moom du dem bi ñu déggee nouvelle bi ñun njortoon nañ ni président du dem parce que ku bëgg a dem du doxalee ni mu doxalee donc moo tax bi ñu waxee bi mu waxee carrément ah noonu rek la mënoon demee parce que vraiment waxoon na bi waxtu bi jotee mu wax te la mu wax mooy li mu gëm mooy li mu jàpp donc jàppoon nañ ne daal président Macky Sall du def troisième mandat. waaw xam nga nit ki yéeneem rek lay am ndax ñun teguñu ci boppu réewu Sénégal président lañ teg fal ko jox ko responsabilité. moom ci boppam demam ci moom la dépendroon ñun dañ doon wax suñu yéene rek ak suñu cofeel donc nag bi yàlla dogalee ñu wax suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg donc mu dem ba xam ne charte réew mi mayu ko mu postuler candidature si la renoncé wu donc nag comme moom renoncé wu na te ñun dañu nekkoon ci ginnaawam di ko jàppale munuñu lu dul vraiment décision bi nga xam ne moom jël na ko ñu ànd ak moom ci décision bi nga xam ne jël na ko waaw man ah, loolu moom sama point de vie la en tant que président mouvement dooleel Sénégal takku liggéey man dama gis ne problème Ousmane Sonko euh, ba ñu toppee càpp ba ñu toppee projet bi ba ci càppandal bi donc man li ma gis que ne moom am na droit postuler am na droit opposer parce que dafa am fu mu nekkoon mu am lu ko fa jëlee donc muy xeex en tant que sénégalais di xeex jeunesse bi jox ko bopp mu war a dem am problème ak yoon. donc bu fekkee ne yoon dafa décider ne moom topp nañ ko daan nañ ko te ñu ne am na foo xam ne mun na fa jaar pour déposer candidature am man dama yaakaar ne vraiment président Macky Sall son excellence amul intérêt te Ousmane ko pour du def du doon candidat parce que comme moom renoncé wu na ne moom mënut a dem man su ma sañoon da koy bàyyi mu mu dem parce que citoyen la te et puis am na droit poser candidat ko defee mu bàyyi ko mu dem comme moom nag moo waxoon respecté na engagement ne moom du dem. na bàyyi Ousmane Sonko mu dem parce que Ousmane Sonko citoyen la te dafa ñefe ba agsi fi mu agsi jeunesse bi jox ko bopp muy doom ci ci réew mi war a am droit comme ñëpp nañ ko bàyyi mu postuler candidat lu ko yàlla may mu jël. waaw mais man yaakaaruma mu yee fitna parce que am nañu droit ñoom woote parce que parti lañu yor ñu reconnaître leen donc comme ñoom ñoom choisir nañ ne Ousmane Sonko mooy seen candidature. donc war nañ ko mën a def ci manière boo xam ne vraiment dañ koy def ci yar def ko ci teggin def ko ci discipline pour man loolu amul benn coow bu ci war a mun a am donc am nañ droit ñu ne ñoom Ousmane Sonko mooy seen candidat donc nañ leen bàyyi ñu déclarer seen candidature loolu laa ci loolu rek moo ci sama gis-gis ah parce que tamit ñun ñëpp ñoo bokk réew mi donc nag vraiment toll na moment boo xam ne nag waruñ mun a téye Ousmane Sonko pour du dem bokk ci jongante yi parce que bu boobaa yaakaar naa ne tension bi day gën a yëg te instant bi ñu toll nii luy épeser dëkk bi jàmm am nit ñi dem ci élection ci jàmm defe naa loolu la ñëpp war a ñaan te dama gis ne vraiment Ousmane Sonko dafa ñu ko war a mun a bàyyi mu dem parce que Ousmane Sonko yaa gën a bokk ci élection yu bëri te terewul ñoom Macky Sall ak ñi mu àndal la ñuy am am nañ ko ba pare donc kon pour man gisuma vraiment ñu war ko war koo ragal ba tax ñu empêché ko pour du dem bokk ci élection yi. waaw man xam nga man allié la parce que dama am mouvement bokk ci ñi nga xam ne ñooy doon jàppale président de la république ah bi yàlla defee mu joxee ne moom vraiment def déclaration ne moom du doon du def can du doon candidat man pour man kenn ku ne am nga libre nga pour nga xool bu yow fan ngay teg sa tànk donc nag dina bëri problème parce que problème bi doonul tey rek ndax même bi président mag Sall di gouverner sax. parti bi amoon na problème parce que ay parti la yoo xam ne dañuy lëkkaloo donc nag loolu amoon na problème xëy na dañ ko nëpp nëppaloon léegi nag bi président Macky Sall renoncé ne moom du dem candidat dina bëri ñu bëri ñoo xam ne dinañ frustré wu dinañ mer dinañ génn ndax xam naa ne décision bi président di jël am na ñu muy neex mais am na ñoo xam ne du leen neex parce que politique moo mel noonu gars yi moom kenn ku ne da xool fi sa intérêt nekk nga défendre ko mais daal problème boobu moom nañ ko xaar te xam ne mënut a ñàkk ci parti bi parce que man damay toog xaar. ndax bi ñu àndeek président yàgg na di jàppale président Macky Sall pendant des années 2005 ba léegi ñu ngi ànd ak président di ko jàppale. élection bu ne fekk nañu fi xeex bu ne xeex nañ ko lu ne def nañ ko ba président toll fi mu toll def première mandat deuxième mandat terewul ñun réclamé wuñu xeexu ñu defuñu dara di ko muñ donc nag bu ñu demee ba yàlla def président mi ñu doon jàppale taxaw ne moom vraiment du dem ah man am naa droit ma taxaw xool fan laay teg sama tànk. parce que ñi nga xam ne président àndoon nag àndoon nañoo ak président di ko liggéeyal di ko jàppale ci parti bi dem naa ba xam ne ñu bëri doyoon ma si donc nag man damay taxaw carrément xool fan laay teg sama tànk parce que ci moment boobu laa tollu ko waaw mais est-ce que da ngay président ki muy teg est-ce que dina neex askan bi parce que askan bi président ci boppam lañ sanctionné gouvernement am lañ sanctionné. donc kon buñ ko sanctionné gouvernement ba tax président renoncer candidature man dama yaakaar ni est ce que kim fi tek sénégalais yi dinañ ko apprécier kon yaakaar na ni benen problème mu ngi non donc motax man il faut que me reculer tek xam fu may tek sama tank quoi parce que tamit euh, man ak lu mëna am man intérêt sénégal moma ñor intérêt sénégal mom lay défendre donc nak bu démé ba askan bi ci sen bop xamné ño preda, président ño dem ba né président doyatulé ba président renoncer candidature man dama yaakaar ne képp ku mu choisir teg ko ci kanam yaakaar naa ne la ko daloon moo koy dalaat ci kooku moo tax nag il faut que man en tant que président mouvement dooleel Sénégal Takku Liggéey il faut ma xam man it fan laay teg sama tànk donc foofu laa tollu waaw mais xam nga doole dépendre ci ci nit ki quoi doole mu ngi dépendre si sa sa sa taxawaay ak maanaam Euh, sa expérience ci politique parce que politique expérience la ko mbooloo mi après day ñëw complété wu ci expérience mais dama xam ne Sénégal boo jëlee 14 régions du Sénégal 45 départements yi yëpp mouvement dooleel yi Takku Liggéey Sénégal am na fa ay correspondance ba ci diaspora bi te ñoo ñëpp ay responsable lañ ñoo xam ne ñu ngi boot plus de mille personnes yoo xam ne ñu ngi seen ginnaaw yàgg ànd ak mouvement dooleel Macky Takku Liggéey Sénégal euh, Takku Liggéey Sénégal xam nga li ma la di ci liggéey pendant des années 2005 ba léegi ñu koy liggéey kon yaakaar naa ne man su ñuy wax doole rek mun naa boo mun naa ne am naa njortu ne vraiment su ma taxawee ñi ma àndal suñu taxawee bu leader ñëwee taxaw suñu àndeek moom vraiment la ñuy la ñuy laaj ci réew mi ñun dinañ ci mun a participer parce que xam nañ bu baax pois bi nga xam ne am nañ ko. xam nga parrainage moom loo xam ne la maanaam euh, ñëpp ay outil donc nag kenn ku ne dafa am loo xam ne mun nga ko cee am par rapport lim bi nga xam ne moom la ñuy soxla du ma ne mun naa am cent pour cent mais nag mun naa jot ne mun naa am minimum xaaju 100 parce que xam nga lu tax ma wax ko parce que bu fekkee yow ñi nga àndal dañu fidèle doon ay responsable bés bu ñu déclaré ne parrainage commencé nañ ñoom kenn ku ne fa nga fa ne mun na am 100 personnes par exemple bu yàggee loolu boo ko boolee lim bu takku lay doon. légui nak ki nga xamné mom nga choisir and ak mom bu indé la am bu ngeen ko bolé yaakar na ne mën ngeen am buntu bu dëgër man fofu la tek samay mbir quoi wa d'accord xam nga loolu mën na nek quoi parce que kenn ko ne ce choix parce que tay bu fekkee da nga and ak nit ki di liggéey ak mom pendant des années donc mu dem ba mom mu taxaw vraiment renoncer ne mom du dem am nga droit nga xaar mu joxé ki nga xam ne moom la choisir bu la neexee tamit bu fekkee ne moom yow moom nga doon jàppale te moom dem na ba dematu bu la neexee yow nga renoncé wu doo xaar sax muy déclaré kan la teg yow yaay xool yow ki la doy parce que tamit su bu ñu waxante dëgg nga xam ne laa nga politique bi ubbeeku na ndax tey candidat yu bëri bëri bëri maanaam candidat yi nga xam ne dëgg dëgg nañ seen seen ndënd pour dem bokk ci jongante bi bëri na te ñoo ñëpp ay sénégalais lañ te li leen tax a jóg mooy intérêt Sénégal ndax man dama gis ne tool jamono bi ñu toll nii tey Sénégal dañu war a muy parti au pouvoir yi parti opposition yi nga xamné vraiment dañu jug pour uniquement pour conquérir le pouvoir xam nga lan lañ wara xex fexé ba opposition bi doon ben bloc défendre intérêt Sénégal intérêt Sénégal muy peuple bi li nga xamné chaque jour dañ koy jooy muy lan problème jeunesse bi problème emploi xam nga lu bëri tay lu yak Sénégal tay lool moko gëna yak ndax tay bu ñu ba jeunesse bi tay amatuñ espoir ci seen leader politique parce que nañu comporté nañu gérer. instance de instance de de décision yi maanaam pouvoir bi nañ ko téye di ko doxalee moo dem ba jeunesse bi doyatu leen parce que tey da ngay gis koo xam ne dafa jàng dem ba yor diplôme am nga xam ne dafa war a déposé pour am liggéey mais liggéey bi dañ koy seppi maanaam ni ko wolof di wax ne kumba am ndey kumba amul ndey donc boo demee nag ba loolu vraiment nga dem ba amatoo espoir ci sa réew mooy waral yenn frustration yi léegi nag li ko gën a président Macky Sall li ko gën a lor nit ñi dañoo amoon ci moom yaakaar ba mu commencé vraiment na mu commencé woon Sénégal neexoon na ñëw taxaw ne moom vraiment day teg lépp ci yoon ku ci def loo xam ne jaaduwul dina la teg ci yoon ba pare commencé vraiment teg ay projets yoo xam ne nit ñi am nañ ci moom yaakaar projet yi lu bëri réaliser na ko mais lu bëri des na mais nag xam nga tamit nga pro nga réaliser ay projet yoo xam ne ay tali ay teer ak yeneen donc loolu baax na mais nag nit ñi bu ñu amul lu ñu def ci seen biir yi du ñu taxaw donc nag problème boobu mooy problème mu Macky Macky Sall son excellence problème mu emploi parce que bëri tey entreprise yoo xam ne tëj nañ ko te pourtant entreprise yooyu mënoon nañ ko tijji créer fa ay emploi yoo xam ne jeunesse bi ku ci jàng mbala kuy uti journal yi sax boo demee dinañ la mun a intégrer ngay am loo yóbbu sa kër man li ma gën a métti mooy dangay gis en ah, société yi nga xam ne étranger yi ñoo ko fi installé muy waa muy Maroc mbala eh, Eh, chinois mais dañuy exploiter sénégalais yi di leen fay ay salaire minérable ay journée 3000 yoo xam ne ay 2500 si ñoo xam vraiment da ngay gis ku jàng ba sëkk yi te problème boobu état bi da ci waroon parce que yow eh, bitim créer fi société war jël nit ñi leen ñu am salaire am statut bu baax yow ñuy souffrir ba pare ñu ne léegi ñu ngi créer emploi loolu du créer emploi loolu yokku problème la parce que tamit nit ki nekk ci benn boîte dafa liggéey pendant 3 ans 4 ans te leer na ko ne liggéey bi muy liggéey temps bu demee ba dooleem jeex dootu fa liggéey loolu yaakaar naa ne pertement la te loolu suñu état yi ñoo waroon xeex loolu ba ku fi ñëw créer entreprise ñu teg la ci yoon jox la maanaam tegal la ay normes yoo xam ne moom ngay respecté ba nga defee ña nga xam ne ñoom ngay recruter ñuy liggéey ak yow donc dinañ ci mën a gis seen bopp bu yàggee sénégalais yi bu yàggee jeunesse bi dootuñu xeex dootu ñu xuloo dootuñu jël seen bopp di ko tay la ci gaal gi di dem ay Espagne ak yooyu donc problème bi yëpp mooy état bi na taxaw dimbale askanam na taxaw dimbale askanam jigéen ñi gis nga dañuy sonn ba bugg dee kër yu bari jigéen ñi ñoo leen yor mais amuñu benn revenu ay natt la ñuy bokk bu ñu leen lebalee ay banque ay ay financement taux bi ñu leen di defal dafay métti ba duñ ko mun a fay te lañ leen di lebal xaalis bu ndaw lay doon bu ñu ko jotee maanaam dañ koy dépassé mujj donc jot na ñu def réforme totale xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu xool kuñ ci dénk réew mi na nga am ngor am xam ne say morom rek ngay jiite say frère say yaay say papa lañ la dénk nga teg ko ci yoon doxal ko loo war a créer emploi nga créer emploi boo waree jàppale jigéen ñi nga jàppale leen su ko defee nit ñi soo toogee nit ñi dinañ la mun a jàppale boo wootee nit ñi ñëw mais nag bu fekkee ne bu ñu la tegee ci réew mi dénk la jox la responsabilité jox la pouvoir bi te yow ña la respecté woo leen faale woo leen la tax ñu jox la ko yow day dem ba yow da lay réer xamatoo sax yow lan nga war a def ak lan nga war a deful loolu moo waral révolte bi parti yu bëri yi ngay gis yëpp loolu moo ko indi donc Sénégal dafa jot ñu vraiment ñu réformer politique gu Sénégal képp koo xam ne jug nga pour xeex pour jël réew mi na nga am matérité bu ñu la joxee réew mi nga am ngor vraiment fexe ba jeunesse bi ñu mun a gis seen bopp ci réew mi parce que ci réew mi lañ bokk donc daal point yooyu laa xam ne il faut que ñu mun ci wax lu bëree bëri bëri parce que bu ñu ciy wax du jeex dëkk boo dem ci réewu tubaab bi seen président yi ñu ngi créer ay emploi chaque jour nit ñi ñu ngi liggéey di am lu ñuy yóbbu seen kër donc nag nit ki boo xëyee amul lu mu yóbbu këram liggéeyul yaakaaroo ko tout le temps ci ay problème lay dëkk te loolu nag suñu chef d'état yi ñoo ñu ko teg jot na ñu réformer vraiment politique bi ba nga xam ne tey kuñ fi falati la ngay njëkk a wax mooy nan laay def ba créer ay emploi nan lay def ba tabax ay usines yoo xam ne Sénégal yi vraiment dinañ ci mun di liggéey di am lu ñuy yóbbu seen kër ko waaw parce que loolu moom dama koy ñaawlu quoi parce que président bu fekkee ne politique a taxoon mu def ko bu demee ba renoncé ne moom dootul def troisième mandat man dama yaakaar ne waroon na mun a am euh, recul. xam ne ñi mu tëj ay doomam lañ ay frère lañ ay sœur am mu libéré leen parce que Sénégal toll ci moment boobu parce que tamit politique jarul yenn yi ndax nguur gu yàlla rek moo dul jeex déjà moom booy xool tey ñépp doon nañ ko ñaanal pour mu def troisième mandat yàlla def na nee na moom du ko def respecté na kàddoom mais nag ñamu tëj ci kaso bi amul njëriñ mu bàyyi leen ci kaso bi nañ leen génne ay jeunes lañ am avenir war a réaliser leneen réew mi soxla leen na leen génne bañ a déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci wetam di ko wax naan ko ñii Pastef lañ bokk ñii ñoo doon taal ñii ñoo doon opposé donc réew boo gis rek léeg-léeg dina am ñoo xam ne dinañ normal mais dina am ñoo xam ne vraiment dinañ am lu leen manqué donc nag président bu ñu la falee dangay ngay baale da ngay uuf ñëpp boole ñëpp xam ne ñëpp sa njaboot lañ donc li fi xewoon ñëpp gis nañ ko ñaanatuñ yàlla mu xew fi te li taxoon mu xew fi mooy nit ñu dem ba désespéré yaakaar amatul parce que président bu ñu ko dénkee mu doon jeune mu jiite ay jeunes léegi jeunesse bi yaakaar ci président Macky Sall mu jàppale leen pour ñu am liggéey am espoir bu ñu demee ba loolu gisatuñ ko moo waraloon yenn ñaawteef yi amoon ci réew mi yenn yàqu-yàqu yi amoon parce que dañ ne Ousmane Sonko moo taxoon mais Ousmane ko taxul jeunesse bi dañu meroon mu ñu tombe mu tombe son ko def li mu def gars yi mer génn mais Ousmane Sonko génnewul leen jeunesse bi ñoo xam ne président Macky Sall lam leen digoon ñu yaakaar ci ñoom ñu dem ba xam ne président am na lu mu jot a def mais am na lu des te li des vraiment moom lañ doon xaar muy créer ay emploi nit ñi di ci liggéey amul ci lañ génn def li ñuy def donc nag man foofu du ma bala du ma blâmer président mais damay blâmer ñi nga xam ne ñooy entourage président parce que tey ay ministres yoo xam ne ñu ngi ci gouvernement président jox leen ay département jox leen ay ministères jox leen budget yu xam ne réew mi moo leen tax a jóg ñu jël budget yooyu waroon jàppale askan bi projet yi nga xam ne mooy tax askan bi gis seen bopp sentir seen bopp ci état bi ñu jël xaalis bi kenn xamut fan lañ ko dugal kenn xamut fan lañ ko dugal ñaata ministère la ñu jox ay responsable jox leen ay milliards tey fu mu mujj ñu ngi dégg naan ministère bi luubal nañ nangam ministère bi luubal nañ nangam fan la mujj lu dul kenn dootu ko wax donc yooyu moo war a jeex xaalis bi buñ la ko joxee pour askan bi. da nga koy def ci askan bi parce que askan bi moo tax ñu fal la mais bu ñu la joxee yenn responsabilité nga gérer xaalis bi nga xam ne askan bi moo ko moom nga jël ko def ko ci sa poos bu ñu lay laaj doo doo rendre compte mais ëllëgee boo bëggee ñu fal la dootuñu la fal te président li ko yàqal yépp mooy entourage bu bon ñoo ko yàqal donc nag jot na nag ñu def réforme total assise nationale ci nan la ñuy gérer suñu bien réew mi ñu ngi wax ci pétrole ak gaz bi mais man dama ne tey instant bi président waroon na def benn décret boo xam ne képp kuy boroom kër dinañ la fay mille par mois nga liggéey nga ñàkk liggéey ndax comme pétrole am na gaz am na te nit ñi xam nañ ne ay ñi fi ñàkk ñi ñàkk ci réew mi ñoo ëpp mu jàppale leen ko su ko defee dina wàññi tension yu bëri parce que bourse familiale baax na mais nañu def benn loi boo xam ne pétrole bee gaz ñu fexe ba sédd ci Sénégalais ñu sant seen bopp bu boobaa kenn dootul xeex. kenn dootul xuloo kenn dootul toj kenn dootul yàq parce que da lay leer ne président boole na la si li nga xam ne feeñ na ci réew mi te nga bokk ci man loolu damay koy réclamer chaque jour président jot na mu indi réforme bu baax jàppale askanam parce que askanam bëgg nañ ko jeunesse bi bëgg nañ ko parce que jeunesse bi ñoo ko fal donc nag jeunesse bi bu ñu la falee nga dem ba def sa premier mandat deuxième mandat ëlbatiku ñu mere la du question ko ne dañ laa mere mais am na lu tax ñu mer léegi nag yow yaay jéem a gëstu lan moo tax sa jeunesse mer nga jéem a négocier waxtaan ak ñoom xool la leen métti la nga ca mun a réformer nga def ko la ca mënul tamit nga waxtaan ak ñoom su ko defee ñu comprendre la mais Sénégal neexu ñoo na ñu neex a waxal lañ mais nag dañu amul espoir ci ñi nga xam ne ñoo leen jiite nit ñi nag nañu bàyyi kuñ ci fal nga jël la tax ñu fal la pour askan bi nga yemale ko sa bopp loolu dafa war a jeex parce que tey sénégalais bu ñu sonnee loolu moo leen sonal. man yàlla falee. li may njëkk a régler mooy emploi des jeunes xool yan partenaire laa mën a lëkkaloon ak xaalis bi nga xam ne état moo ko moom Sénégal moo ko moom ñun ñëpp ñu bokk ci ñu xool nan la ñuy créer ay entreprise yu mag a mag a mag yoo xam ne bu ko créer Sénégal dina créer ay maanaam milliers de de de travailleurs ñoo xam ne chaque jour bu ñu xëyee bu ñu demee déposer dinañ leen mën a recruter ñu liggéey bu weer ñu am lu ñu yóbbu seen kër parce que loolu mooy politique bi nga xam ne moom la ñu war a njëkk a xeex xool ban point maanaam yan géant la ñuy teg ba nga xam ne réew mi problème mu emploi moom dootuñ ko wax parce que bu fekkee ne créé euh, maanaam comme ni ñu ko créé maanaam xëyu ndaw yi baax na mais loolu dafa doon projet yoo xam ne dëgërul par exemple maanaam nit ki mënu see gis boppam 100 pour cent mais nga créé ay industrie yu mag a mag parce que tey gisoon nañ fi tey bata bi nekkoon Tëngéej li mu doon li mu doon employé par par par jour ñu gis Sotiba ak yeneen ak yeneen yeneen société yoo xam ne tëj na te yooyu tey bu ñu ko créé woon ubbi ko tuddee ko beneen tur nga xam ne dina employé plus de ay milliers de jeunes ñuy liggéey bu yàddee ñu am lu ñu yóbbu seen kër bu boobaa di nga régler problème mu xëyu xëyu jeunesse bi. jeunes bi bu ñu amee ci lu ñu jàpp seen waajur yi dañuy am yaakaar dañuy am espoir bu boobaa dootuñu tal nekk fii di xeex di xuloo donc loolu mooy seen problème képp ku mun a jiite Sénégal na nga fexe ba créer loo xam ne. Sénégal dinañ ci gis sen parce que pétrole gaz or ak yenen yu am Sénégal té nit ñi mënuñ fexé ba créer lo jeunesse bi buñu xëyé dinañ am ci luñu ci donc pour man vraiment compétence ak xam-xam fi mais vraiment si ko ci yoon pour créer luy luy tax jeunesse bi mëna am ci luñu japp ba sen xel dal ba ku ñëw ñu fi mais nak ñi koy gérer ñoñu lañ wara lan la ñuy gérer réew mi ak lu tax ñu koy gérer noonu ba jeunesse bi mënu ci gis seen bopp donc loolu daal mooy li nga xam ne moom laay ñaan képp kuñ fi teg na nga def prioritaire mooy créer ay société créer ay partenaires yoo xam ne dinañ la mën a dooleel jàppale la ba tabaxal la ay société yu mag a mag yoo xam ne di nga mën a recruter li nga soxla te vraiment problème mu emploi dinañ ko mën a régler ba nga xam ne dootul doon problème ci Sénégal loolu daal xam naa ne mooy suma problème mooy suma bilan bi nga xam ne moom laay défendre fu ma mun a nekk tey ci Sénégal lay défendre parce que loolu man mii dama ci gis sama parce que en tant que jeune vraiment gis samay frère gis samay rak gis samay doom di souffrir des a liggéey mënuñoo liggéey yenn société étranger ñu Sénégal ñu leen di utiliser di ba di après ñu xëy dem seen yoon ñun ñu nekk ci ay coono loolu moom dafa war a jeex état bi pour donc loolu l'a laa amoon waa li may tàggatoo rek mooy ñu wax xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn mënu ko xar kenn mënut a wax lenn lu ñaaw ba mu dal sa morom nañu rafetal cere ji réew mi nañ ko rafetal képp koo xam ne yoon may na la nga posé sa candidat pour dem uti nañ la bàyyi nga dem uti lu la yàlla may nga xam ne yàlla moo la ko may donc nag ñii dem ñii duñu dem loolu tension lay indi fitna lay indi te loolu baaxul ci réew donc nag président moom la yàlla teg gunge nañ ko def na lim waron def ba jeexal na yaatal geew bi ku wara dem na dem loolu la yàlla may ñu xam ne sa sens la mais bu ñu yëngal réew mi bu ñu taal réew mi parce que ñi nekk ci réew mi di dund ñi ci ëpp seen loxo jotuñ seen ginnaaw te bu réew mi amee fitna ñooy gën a sonn donc nag ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci réew mi doonuñu dara ba réew mi defal leen bañ doon dara am loo xam ne mosuñ koon yaakaar nañu am ngor delloowaat réew mi njukkal ni ñu leen ni réew mi njukkal mooy fexe ba bu ñu taal réew mi muy suñu mbokku politiciens yi nañ fexe ba bu ñu taal réew mi nañ teg yëpp ci yoon bu ko defee ku ci sa ay jot nga def li nga waroon def boo jeexalee nga dem keneen ñëw Sénégal continuer di doon Sénégal donc nag loolu laa amoon wax di wax ne élection yi ñëw daal nañ ko def ci jàmm ki war a gañe gañe te ku gañe tamit na nga bàyyi xel ne boo gisee ñu fal la am ci yow yaakaar pour nga relever le défi fexe ba Sénégal génn ci jafe-jafe yi loolu daal laa amoon wax problème mu mbëkk mi nag gis naa temps yi commencé waat na ñu ñu jël ay gaal di dem te loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk eh, espoir ñàkk yaakaar ndax tey chef d'état yi bu ñu defoon li ñu waroon def Afrique kon doom yi du ñu jël ay gaal di dem di dee ci géej kon président chef d'état africain yi nañu delloowaat seen xel xam ne seeni doom ñooy dee ci géej yi ni tubaab yi ñëwee fii di am jàmm nañ fexe vraiment xeex ba africains yi bu ñu bëggee dem Europe mu yomb ci ñoom loolu moom il faut que état bi di ci xeex. yombal gars yi ñuy dem ci voie normal te ñu fexe ba liy tax jeunesse bi di dem ñu ñu régler ko parce que Sénégal bu amee pétrole am gaz ba pare nit ñi amuñu yaakaar toog lu dul di jël gaz yi di dem kon état état mun nañ ne état échec na donc nag état bu échecee nag damaa jàpp ne yaakaar dootul am moo tax nit ñi di def la ñuy def donc nañu waxtaanaat xoolaat tegaat lépp ci yoon li ñu war a réformer ñu changé ko fexe ba téye jeunesse bi moo gën ñuy bàyyi gars yi ñuy dem ci géej gi di dee. réew mi di ci perte loolu yaakaar naa ne problème mu état la kon état bi ndax xool yéen jéego lay teg ba problème bi mu rek la loolu daal laa amul wax di leen sant vraiment ci dalal bi ngeen ma dalal ndax fii sama télé la ndax yéen yéen a ngi góorgóorlu di xool luy développé Sénégal kon yéen ñu ngi leen di ñaanal ngeen dem ba boo seen télé yi bokk ci tele yi gën a mag ci Sénégal parce que lu ngeen fi wax rek luy jëriñ Sénégal moo tax ngeen koy wax. kon nag man vraiment maa ngi sant suma frère Omar Diouf mi nga xam ne moo ma dalal ci teleem bi waxtaanee li ci réew mi kon nag maa ngi ñaan élection yi ñuy waajal yàlla nañ ci dugg ci jàmm génn si jàmm képp koo xam ne candidat nga rek la ngay yàlla na la ko yàlla may te bu la ko yàlla mayee na nga fexe ba sédd ci Sénégalais yi parce que Sénégalais yi ñooy fal te lii tax ñuy fal am yaakaar ci ñi ñuy fal moo tax kon nag ku kuñ ci falati rek na nga am ngor ba la nga xam ne moo tax ñu fal la boo munta def cent pour cent it nga def loo xam ne bu ñu la gisee dinañ xam ne kat vraiment am nga yéene ci sa askan li nga mun def nga ko li si des ñu teg ko ci loxo yàlla donc loolu laa amoon wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen jox rendez-vous beneen émission ak beneen contexte politique bu Sénégal jërë ngeen jëf.